del déglu del. les gens ñooy wax ne boobu se préparé parce que dafa yor feuille. El Hadj ne ko li ngay wax ni yëpp ay détails la damaa bëgg nga wax sénégalais yi lan moo tax nga porter plainte Ousmane Sonko. Hmm. lan moo la booleeg Ousmane Sonko. Euh, Sidi Ahmed Mbaye ban rôle la ci joué. Hmm. le le le gendarme ban rôle la ci joué. Hmm. sa patron ban la ci joué affaire bi jeex. mu commencé waat di wax. di wax di détaillé El Hadj Diouf ne non coupé Khalifa Diakhaté que je salue le passage qui est laisse-moi lui poser léegi nañ leen ko poser. parce que Khalifa il était sur les lieux aussi. Khalifa ne léegi nañ leen ko poser ay question ci la ko Khalifa commencé poser question loolu mooy troisième vidéo bi mooy deux troisième vidéo boobu boo gisee da ngay gis ne Adji Sarr elle était à l'aise instant bi ñu koy poser question sëggatul woon ci foy bi boobu c'était pas préparé. Khalifa ah donc les autres étaient préparés. comment. Bon, non c'était pas mais les autres non les autres nag man xaw ma préparé la xaw ma préparé wu. parce que les gens disent que boobu. non xam nga les gens ñooy wax ne boobu c'est préparé parce que dafa yor feuille. mais yow da nga ne boobu c'était pas préparé donc les autres. non j'ai pas dit donc les autres ne sont préparés. non non on ne poursuit pas. ah on reste donc on ne poursuit pas loolu dafay leer. non non non dama bëgg mu leer. bul ne les autres étaient préparés dama ne. bi muy ñëw dafa indaale kon kon momo nee nga Adji Sarr. ñaar eh, nee nga troisième coupure bi nee nga c'est à partir de la troisième coupure. de la troisième coupure. Ah, ci la ci la ci la Khalifa Diakhaté di ko poser question muy répondre. nga mu ngi fa woon. waaw Khalifa Diakhaté di question muy répondre bi ko xalifa di poser question boobu mu ngi toog jàkkaarloog Khalifa Diakhaté mm. fi suñu caméra bi nekk ah. foofu la xalifa jaxate toog moo tax ñu am ko en face ñun xalifa di poser muy répondre xalifa di poser muy répondre bi ñu paree moo tax on n'a pas monté Salma di poser muy répondre vous voyez on n'a pas loolu lañ jël noonu bi ñu yegsee dama ne Pa Omar que je salue passage mooy suñu technicien bi ma àndaloon. oui mën ko Pa mu ne ma mën ko jëlal vidéo bi nga dugalee ko noonu. jël vidéo bi bul ci monté dara mu ne moom ak ak mu ne ko jëlal lépp nga dugalee ko noonu bu leen ci monté dara lii bu mu dugg lii bu dara lépp a dugg non ñoom euh, Adji Sarr non parce que parce dañoo génn dem biñ ne coupé yéen ngeen coupé donc exigé leen luy dugg ak dugg non kenn exigé bi ñu paree bi ñu paree maître El Hadj Diouf daf ne si vous voulez vous pouvez prendre la dernière la dernière instant bi poser question réponse parce que comment loolu la wax. nan leen ko waxee. si vous voulez vous prenez wala si vous voulez vous prenez ou si vous voulez vous. non non il faut qu'on soit clair quand même. dafa taxaw non dafa ndànk. non non soyons clairs. on est là pour éclaircir. waaw donc da ngay wax présume. bàyyi ma quoi ñu expliquer présume mi day ruubee présume. baal ma rek non non. bi ñu paree El Hadj daf ne vous pouvez. mu mais comment. je ne sais pas comment dafa taxaw wax ko. dafa taxaw wax ko bu pouvez prendre euh, vous pouvez prendre euh, dernière version bi wala leneen mais de toute façon euh, on a il a elle a elle a dit tout ce qu'il en est. bi ma ñëwee dama ne bu ñu jël parce que dama laaj dama laaj sama technicien bi ma ne ko bu ci nekk ñaata minute la mu ne ma yëpp de bu ñu ko taqalee mën na nekk ay une heure et quelques une heure quarante et quelques minutes ma ne ko nañ ko jàllale par noonu noonu. bi njëkk daal ça fait une heure quarante. sur une heure et quelques. mais j'ai rien compris. Je... non dafa dix-huit heures nga démarré tu as dit tout à l'heure dix-neuf heures ngeen pare. le total fait une heure quarante. j'ai pas dit dix-huit dix-neuf heures lañ pare. si non j'ai pas dit ça. désolé day yégale yégale Mohamed yooyu ay détails la sax mhm. loolu laa wax 18 heures la ñu waroon a démarrer heure bi ñu waroon a démarrer sax passé na mu doog a def déclaration. d'accord maintenant yéen yéen ci quatre coupures yi fu nekk da ngeen. cofuñu lépp lañ jàllale. ok on a fait passer tout ce qu'on a pris. amul lenn loo xamante ni denc nañ ko ci vidéo boobu de. Hmm. ci vidéo boobu. bu mujj bi amul lenn luñ denc loo xamante ni waxoon na ko fa parce que les autres étaient là-bas. Hmm. déjà les autres étaient là ñoom xam nañ ne ñun dugal nañ lépp. Hmm. les amuñu woon caméra amuñu woon dara. si TFM mu ngi doon filmer quatre caméras moo fa nekkoon sëñ bi ana film ya te quatre caméras moo fa nekkoon je ne sais pas man waa TFM du man maa leen di wax ana film yi. TFM mm-hmm. mu ngi doon filmé TFM ñu ngi doon filmé ITV ñu ngi doon filmé man maa ngi doon filmé. yéen yéen a woo presse wala ñoom ñoo leen. non ñun dañoo woo. dañ leen woo dañoo woo. ok y kat quatre la là-bas quatre ñoo fa nekkoon. bu mm-hmm. voyez. Mm-hmm. ñeneen ñi ndax ñu ngi doon filmé wala filmé wuñu xaw ma mais man maa ngi doon filmé te li ma filmé jàllale naa ko. léegi plainte bi nag moom. ban plainte. waxu plainte bi fu mu mujjee. ban waxu plainte. Adji Sarr dafa déposé plainte bind na ko bind ko wax ji bëri na. loolu xaw ma ci dara man je suis pas dans le staff lay wax. waaw waa mhm. lay wax. non bu fekkente ne plainte Adji Sarr bi lay wax ak Ousmane Sonko xaw ma ci dara. ni ngeen li ngeen ci xam laa ci xam. Mhm. Aujourd'hui, euh, après la diffusion de cette vidéo, euh, Leral a fait objet de lynchage sur les réseaux sociaux. Euh, am na sax ñu ne Eh, ni ngeen ko defee dafa xaw a manqué professionnalisme ñeneen ñi ne ni ngeen ko defee dafa nduru HA euh, ñeneen ñi ne pourquoi vous avez senti le besoin d'aller jusqu'au village de Adjissar pour peut-être essayer de la blanchir selon ba tey li sénégalais di laaj ndax man dama toog rek pour laajal nit ñi li ñuy laaj point bu mujj bi nag moom ma gën a soxal on peut comprendre ton explication par rapport ak Adji Sarr moo leen woon ne leen dama bëgg a wax def déclaration de presse du Adji Sarr mais staffu Adji Sarr parce que nag nit booy wax média bi la neex ngay waxee mais ban ban lecture ngay def ci le fait ngeen dem ba euh, di fiir poser fa ay njegeñaale Adji Sarr ay question teg ko tout juste avant moom ngeen di teg interview am bi problème bi bi problème bi éclaté man daf ma daf ma tenir woon à cœur vous savez pourquoi parce qu'il s'agit de de de la personnalité wala boog de l'opposant boo xamante ni tey moom la askan wi wala boog moom moo war a mën a yëngal nguur mhm. tey moom lañ doon wax ne kii moom mooy nekk moom mooy moom mooy nekk chef de l'opposition moom la sax mhm. vous instant boobu lañ doon wax donc li ma ñoroon mooy que ñu xam fan la dëgg féetee mhm. bi gars yi di def Ousmane Sonko génn na deux fois wax na on n'a pas vu Adji Sarr Adji Sarr waxul. Mhm. ñu ngi génn ci réseau sociaux yi ci ci site internet yi ñuy am ay audio ñuy wax naan ñii ay mbokk Adji Sarr lañ ñii ay tantam lañ man ne je vais voir la véracité de ces tantes la ak de ces parce que quoi qu'on puisse dire aussi il faut que ñu dem euh, wuti li nga xamante ne moom mooy la vérité. Mhm. donc on a jugé nécessaire d'aller ba feer dem ba ji feer pour xool ndax réellement réellement aji jifeer la dëkk wala feneen la dëkk. bi ngeen demee xam ngeen ne aji jifeer la dëkk bi ñuy dem ci lañ am ci laa wutaale ay information que ne aji dëkkul jifeer dëgg-dëgg aji jërnda la dëkk ak maya te diggante jifeer ak maya di nga def deux heures wala trois heures ci ndox mi. pour romb pour romb. mu jaral leen ko mu jaral ñu ko. Hmm. avec nos propres moyens nag. avec kenn joxuñu dërëm. avec nos propres moyens ñun ñoo voilà exactement ñun ñoo demal suñu bopp bi ñu demee waa dëkk ba dañu doon daw bi ñu nee cëpp gi gars yi gi suñuy ñu dañu doon daw wallahi la azim pour ñu dem pour ñu xam sax maamu Adji Sarr bi nga xamante ne moom moo sol kaala bu rouge bi pour ñu dem këram c' était tout un problème. mais maamu Adji Sarr ñu a apporter dans cette. loo xam ñun dem naan kii maju Adji Sarr ñu doon wax seen école te moom mu ngi toog di leen ree naan leen kii sama mag la ñoo bokk ndey ak baay ñu naan ko du dëgg kii magu Adji Sarr la parce que moo dem ba dëkk ñoom Adji Sarr ce sont les risques du métier d'accord amul mm, problème mais ñun ñun ñoo dem jul suñu engagement mm. pour xam dëgg-dëgg les vrais la vraie famille de Adji Sarr ak ban perception lañ am ci Adji Sarr mm. bi ñu demee waa dëkk ba dañoo bañ a wax waa dëkk ba dañoo bañ a wax dañoo jaar ci le maire parce que dëkk bi dafa am ay réalité chef de village bi daf nañu fii ku nekk ñëw na fi mais on n'a pas voulu Mm-hmm. duñu wax on va pas. duñu wax ak yéen je suis désolé mais nag nan lañu war a mën a def pour yéen ñaar pour yéen. non mais laisse-moi terminer président xanaa sénégalais je suis désolé. yow yaa ko laajte fii léegi expliqué intéressé wul sénégalais yi. kon chef de village bi non mais kon yow bul waxati lan la ñu def ba am ba dem kër ñëw Adji Sarr donc dans ces postes vous êtes parti dans un but de blanchir Adji Sarr. non c'est pas donc laisse-moi terminer waaw kon kay bul wax li may wax intéressé wul ak gars yi muy wax ni pour avancer dañoo dem dañoo dem ñoom dañoo bañoon a wax. on a pas est-ce que c'est vrai que vous étiez là pour blanchir Adji Sarr man lan laa ciy jëlee pour blanchir Adji Sarr lan laa ciy jëlee pour du dëgg c'est pas vrai ce sont des mensonges te man su ma ko toppoon ci dynamique am diffamatoire je vais plainte beaucoup de gens yi wax ne leeral dañoo nekk ci ay complot wala leeral dañuy nekk pour blanchir Adji su ma neexoon ma porter leen plainte ñuy wax ñëpp non non dans un milieu euh, boo xam dans un pays boo xamante ne le faux le dañ ko maquiller maquiller ba mu dróog dëgg ñoom influenceurs yi ñoom influenceurs yi ñoo ñoo gën tax le faux ñu maquiller ko maquiller ko ba mu dëgg dëgg ñu maquiller ko maquiller ko non non non lu bari ci influenceurs yi laa lay wax parce que tey yaa ngi wax sànq ba tey may ma ñëw yaa ngi wax sànq ba tey may ma ñëw gis nga euh, Momo je pense qu'il est perdu te je pense que non je ne suis pas perdu dalal tuuti dalal tuuti non non non je ne suis pas perdu dañuy xulloo dañuy xeex dalal tuuti naanal tuuti ndox bu sedd rek après ñu donc leeral en fait tey jii nii nekkul nekkatul un site bu publier ngeen dugg. ci page Facebook leeral c'est pas à vous de dire que leeral est un site crédible ngeen xool ni leeral. récemment Y'en def avertir na leeral pour porter leen plainte. Mhm. parce que leeral dañu publier ne que ni y a des jeunes yoo xamante ne ni c'est des sonkoïstes. dañu bëggoon rey ay nit ci manifestant nga laaj leen article boobu leeral def na loolu. nar leen nar leen yóbbu en justice. c'est vos partenaires. donc bu wax pré waaw mais waaw mais bul wax ne. donc tey jii nii. xaw ma ban site la wax ban site la kon bu la leeral moo ko bind donc. mais yaa ko bind bind ko. c'est leeral qui a repris cet article là. yaa na leeral a repris bul ne leeral bind ko. yaa na mar a attaqué leeral bi nga xamante ni. parce que yàlla xamul woon kan moo bind site bi. ba nga xamante ni nee na daf leen di yóbbu ci justice ñoom ñu def un mea culpa taxaw ne ñi ngi jéggalu poste boobu noonu dindi nañ ko du dëgg du yoon li nga xamante ne ni moom li moom mooy image bi ñu collé. Mm-hmm. les membres de Y'en a marre. donc encore une fois may wax que ni leeral maintenant ce n'est plus un site crédible. non non non euh, président président je suis désolé aussi pour toi ce n'est plus possible yow yaay taxaw crédit yow yaay taxaw Seydou Cissé di wax ne site Leral n'est pas un site crédible nekkul yow yaay taxaw di wax ne lavabo bi euh, jàll nañ ci parce que parce que yow parce que yow on a fait un article sur vous on a fait un article sur vous nga taxaw ne Leral n'est plus un site crédible mais yow faire un article sur moi n'est pas du journalisme mais yow vous n'êtes pas li ngay def du journalisme encore une fois yow yaay li may def lan la yow yaay non mais li may def lan la li may def lan la bu dul du journalisme

dem ci Ibrahima Faye ne oui président sa daf ñu commencé. Ibrahima Lissa Faye. président appel association des professionnels et éditeurs de la presse en ligne. nga mhm. xamante ni nii waa leeral daa daam ak ñoom Dakar ak ci dem nañ ci appel ne waaw préciser def ñuy bund xataal sonal nañu ci réseaux sociaux préciser lan. ah en ligne la sonal. Ibrahima Lissa Faye dem Walf dem TFM dem fu nekk. <laughs> mais qui t'a dit mais prési yaa ngi def ay accusations fortuites aussi parce que rien ne te dit quand même que. Euh, les sites internet sont partis voir may ma may ma may ma moomoo. Euh, rien ne te dit quand même a reçu les plaintes li ni déclaration appel la je n'invente rien ce sont des faits. Mm. appel a reçu les plaintes de Leral. Mm-hmm. ak Dakar Actu. Mm-hmm. bi nga xamante ni nii jot nañ plainte bi Ibrahima Lissa Faye mi nga xamante ne nii. Euh,